xam-xam bokku ci surtout nag maa la ne waxal fi mu ne boo waxul am bàkkaar boo waxul wàcce nga sama ndigal boo waxul soppoo ma boo waxul bëggoo ma boo waxul doo sama dara ah na leer de te yow xam nga ne man du ma waxantu de soo ma séddee orma bi bañ a wax lu Alaaji Abdou Aziz daan wax jëfe ndigal moo ëpp ormal ak màggal Cerno Bachiru Muntaga daa Cheikh mar bii la ko waxoon moo ko seet si Louga sëñ Abdou ngi ci biir ñoom ñëpp ñu toog ci suuf ba sëñ Abdou génn Cheikh Alaaji Abdou Aziz da baax bi mu génnee ne ko Bachiru toog leen ci kaw Cerno Bachir ne ko baax na mu ne ko Cerno jóg leen toog ci kaw mu ne ko sëñ Abdou fii baax na Cheikh El Hadj Abdou Aziz ne ko Thierno Bachir mu ne mu ne ko jëfe ndigal moo gën ormal ak màggal jógal toog ci kaw Thierno Bachir door a jóg toog ci kaw moom ñi ma àndal yow it loolu laa lay wax man bu ma ormal ci lu jëm ci xam-xam xam-xam alalu jullit la yonent bi sallallahu alayhi bañ na ko ba wax ne alxikmatu daalul muumin xam-xam alalu jullit bu réer la mu ne bu ko fekkee ci mbalit sax na ko for raxas ko ba mu set mu jëfandikoo ko bu newoon ci gémmiñu yéefar it fexeel ba yéefar bi wax ko nga jëriñoo ko bu nekkoon ci gémmiñu animiste bu gëmut yàlla it fexeel mu wax ko ba nga jëriñoo ko moo tax suñu sëriñ bi xam yàlla xam àddina Cheikhul Hadji Malick ba nit ñi di wax yéef tubaab yi ay yéefar lañ pititi patatat gasama xam nga lu mu wax moom naouzu billahi min charril kuféeri kon am na luñ baax le waxul naouzu billahi min al kuféeri min charril kuféeri la kon am na luñ baax le moo tax mu ne yàlla maa ngi lay ñaan yéefar yi lañu bon le musal ma ci waaye lañ baax le mosal ma ci boo ko waxee tey ñu naan yéefar yi amuñ lu baax rajo bii may waxee ku ko defar mbubb yi ñu sol ku ko defar ñun pusa sax mënuñ koo defar bi pénurie puso bu fi amoon léegi bu ci France waxut àddina tukki ñun pour Afrique mënuñu sax defar pusa pusa rajo yi ngeen di déglu ku ko defar télévision yi ngeen di seetaanee ku ko defar climatiseur bi di ëpp climatiseur bi di ëpp ku ko defar lamp yi na ray yi ku ko defar oto yi ngeen di dugg ku ko defar moo tax bu gaa yi di rey seen bopp bid a bid a bid a ma ne bàyyi leen oto yeeg avion yi bidaa la di te dox yonent bi da daan dox wala ngeen ut gëlëm wala fas jëm Paris ba xam bidaa bidaa bu rafet ak bu ñaaw a tax ñuy wax bidaa bu rafet ci diine la bokk bidaa bu ñaaw nag diine sax sox kenn soxlawu ko sax waxuma la ak diine buñ nee bidaa ceebu jën bu kenn lekk ceebu jën yonent bi xamutoon ceebu jën supp kànja xamu ko woon xamuloon maafe su loxo mbalax yooyu yëpp yonent bi xamu ko woon te ñun ñu ngi koy lekk ah waaw ñu bëgg a rey suñ bopp ak su but biddaa biddaa sunna sunna da ngay xam lan mooy biddaa ak lan mooy sunna nga man ko ràññe ràññeetle mënoo ko ràññeetle bàyyil mënoo ko ràññeetle bàyyil te ñi ko xam nga jàmmal leen lii rek la mais biddaa <laughs> bu dee yooyu mooy biddaa portable ba ko bi daal la di yonent bi dafa xamoon portable dafa amoon portable dafa amoon ci jamono amul kon bi daal la wax naa ko léegi kon ñu bokk sant yàlla ñun ñëpp moo tax Maodo mi xammee àddina xam àddina xam yàlla mu ne naouzu billahi min charril kuféeri yàlla musal ma ci bon bon yéefar yi waaye lañ baax le mosal ma ci wa min charri nasara mu ne ak chrétien yi lañ bon le musal ma ci lañ baax le mosal ma ci wa min charri salaatin mooy buur yi lañ baax le mosal ma ci lañ bon le musal ma ci wa min wazirin mooy suñ gouvernement yi lañ baax le mosal ma ci lañ bon le bàyyil wa jinnin ak jinne yi jinne yi am na luñ baax le wa shayatin yi seytaan yi sax xamoo am na luñ baax le parce que turi yàlla yi ngay gis dafa am zulmaaniya am nuraaniya tur yàlla booy sikkar bu mën a doon dafa am zulmaaniya am nuraaniya moo tax li kulli euh, moo tax yàlla wax ci alquran ne wa kullu shay'in indahu bi miqdaar aalimil xaybi wa shahaadati kabirun mutaal suñ borom nee na lu ne dama ko pose ba am équilibre abajada bi vingt-huit lettres la quatorze lettres yi mooy nuuraaniya quatorze lettres yi ci des mooy zulmaaniya ñoo yem kepp moo tax lu wali yu mën lu wali yu rahmaan mën rek wali yu seytaane mën na ko différence bi mooy wali yu rahmaan eh, jëfam day sax dàkk du soppeeku wali yu seytaane nag jëfam tey la boo ëllëgee mu dee mu jeex waaye mën na lekk safara kii lekk safara naaw ci jaww ji kii naaw ci jaww ji dox ci géej gi kii dox ci géej gi ndax araf yi ñoo tolloo araf yi abajada bi 28 lettres la 14 yi mooy nuuraaniya 14 yi ci des mooy zulmaaniya wa kullu shay'in indahu bi miqdaar yàlla ne lépp dama ko peser ba mu am équilibre guddi bëccëg noor nawet njool gàtt xees ñuul asamaan suuf góor jigéen safara ndox pour équilibre mën a am ñaaw rafet xanaa xamoo ki rafet ki ñaawoo ko tax a rafet ah waaw parce que bu am bu ñëpp rafetoon kuy xooltaaru taaru kenn jeex na waaye ci biir ñi ñaaw nag la ñuy lijjantee ñi rafet waaw ah, kañ moo tax ñi ñaaw ñi ñi ñi rafet buñ tiitalu de ñi ñaawa leen tax a rafet ah ñi ñaaw buñ tiitaru de ñi ñi rafet buñ tiitaru ñi ñaaw ñoo tax ñu feeñ bu ñaaw amuloon rafet du am njëriñ ndax bu ñëpp bokkoon am yem taar kuy xool sa morom moo tax àjjana kenn du ñee kenn ñëppay bokk taar ñëppay niroo taar jigéen ñëppay tolloo at uruban atraban la yàlla wax ñëppay tolloo at jigéen ñëpp 33 ans góor ñëpp 25 ans kenn du màggat kenn du soppeeku ñëppay niroo taar ñëppay bokk âge hmm. foofu kenn du ne diw daa ñaw ñépp rafet koo ci xool rek moo dàq jinne ok kon euh, moo tax arafi abajada boobu nuuraaniye mi tur yàlla boo gis dafa am leer am lëndëm leer gi la rooxaaniye yi di dundee ak malaayika yi lëndëm gi la jinne yu bon yi di dundee ak seytaane yi moo tax nit ku lay jox turu yàlla te mënta détaché lëndëm gi jox ko seytaane yi ñu dundee ko leer gi mu jox la ko bu la ko joxee nga gaañu lam la jox nga di jëm di ko yëngal war na ko xam-xam gu ne contrôler ko comme yow ku yor sa portable di téléguidé sa télé sa sa euh, nu ñu koy waxee ci lii commande sa télécommande yor sa télévision di ko changé moom mi la jox turu yàlla war na xam tur wi xamin woo xam ne bu la ko joxee day jël zulmaaniye bi jox ko jinne yeeg seytaane yi ñu di ko dunde pour man laa muccal yow may jàmm nga continuer ak sa nuraaniye ku ko mënul warta joxe turu yàlla moo tax Cheikhul Xaaji Malik radiallahu taala an li wax dafa leer wa min wasirin wa jinnin mu ne ak jinne yi summa bi xeqadin ak borom pas-pas yu bon yi am na ñoo xam ne pas-pas yu bon rek lañ yor mooy ñu iñaan ñi fammin nga musal ma ci gémmiñ te gémmiñ daa am rawati senegal wax rek waa ay nin ak bët nga musal ma ci bët bu ñaaw am na ñoo xam ne lu ñu xool mu gàkk sëñ Mor Diop dégg ngeen mu wax ko teg nañ ko ci Cherif Dabakh TV bi gis ngeen ko ba ma fa demee yóbbu amee Amina gis ngeen ba ba muy bind ka ko fa fekkoon rek ne ko wuu sëñ moor yaa mën a bind te rafet bind rek loxo bi nii ba genn góor a ko ci dimbale nee na loxo bi wér vingt ans après sëñ Mor fekk <laughs> mu fekkaat sëñ Mor di bind mu waxaat la même chose loxo bi néewiwaat sëñ Mor Jóob bi benn na baaraamam bi noonu mu def noonu looloo ko def gémmiñ dafa am te senegal dañ ñeme gémmiñ ñeme gémmiñ weesuwul sañse sa ba jekk ñu ne la lalal naa la ngay guuxi lex danga cay sànni dara mag ñi bu ñu leen ma sa wax lalal naa la dañ cay sànni doomu guro wala juróomi dërëm ne laal li naa cat dem waaye léegi ngay gis jigéen sañ sa ba génn ñu ne ko lalal naa la laal <laughs> naa jël 500 francs sax sànni ca wala 1000 ne ko maako ko ko làllee cat dem parce que yaa njëkk catu sa bopp boo sañsee ba pare looy wax fuu tabarkal nga génn ñu ne tabarkal la nga dem xew ma ñu ne tabarkal la nga dem ñu ne wuu nga lu yaakaar ne yooyu yëpp du la topp da lay topp beneen la pëtëx moo tax Maodo ñaan ko fammin wa aynin boo demee ci ca hamziya bu Cheikh Sidi Ahmad tiijaan yi firi bi mu firi du tuddee ko hamziya am na ñu daan toog ci taatu kaaba gi gëlëm yi bu ñu daan romb rek dañuy seet benn gëlëm ba ca gën a mag ñu fixé ko di ko xool balaa gëlëm yi di jàll rek moom mu ne fàtti ci suuf borom gétt gi ne jël leen rey lekk yéen a ko def bët dafa am gémmiñ dafa am am na ñoo xam ne lu seen bët gis mu yàqu am na ñoo xam ne luñ ŋaan ayib dugg ca day dafa am moo tax Seydi Hadji Malick ñaan ko Maodo dafa xam àddina xam yàlla fa wa ay nin musal ma ci gémmiñ ak bët mu teg ci wa ay ak jongoma ju ma mu ko jëlee ci óorul iin xóorun iinun iinun jooju jigéen lay firi moo tax mu ne wa iinin ak jigéen ju ma lewut wa shayatinin ak shaytaane yi wa zaalimin ak tooñkat ndax nit ñi dañ lay tooñ te dara du xew wa zalimin ak tooñkat wa min wa munafiqin ak naafeq mooy ñi ci sa biir di la gëm-gëm lu te gëmuñ la aka bari aka bari wa munafiqin ak naafeq yi wa zi xasadin ak ku iñaan wa man ak képp koo xam ne tafassaqa dafay yàq yaa raxmaanu yow yàlla bi am yërmande na ji nii musal ma léeg nga dégg kuy ñaan na na kenn du ko wax Maodo na ji nii la wax xam nga lu tax inna ibrahima kaana ummatan benn nit la waaye nation la ci grammaire benn nit day représenté nation te Maodo représenté na nation hmm. inna ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi xanifan wa lam yaku min al lu tax shakiran li an umi hmm. ijtabaahu yàlla tànn ko waataynaahu fi dunia xasanatan hmm. waaw inna suñ borom nee na naka maam ibrahima kaana nekk na ummatan di nation te kenn la ndax jëfi nation lay def xaanitan dafa taxaw temm moo ko ko may lillaahi aji sax ñeel yàlla nekkal yàlla rek moom maam ibrahima ah kaana ummatan xaanitan lillaahi muy ko ommatu jëm ci borom wa maa kaana mosul nekk minal mushrikiina di ma bokkaale man yàlla mu ne maam Ibrahima mosul bokk mosul nekk yéefar wa maa kaana minal mushrikiin du lool lu ci topp shaakiran shaakiran ku ma daan sant la ci xéewal yi ma koy defal ak nattu yi ma koy teg li an umi ci xéewal yi ma ko daan defal yàlla ne man duma fakk jëf ku ma defal ma wax ko ku ma defal ma fay ko moo tax ijtabaahu tànn naa ko ci caractère yi mu am ak personnalité moo tax ijtabaahu tànn naa ko moom moom Ibrahima yónni ko yemuma ca wahadaahu jubal naa ko ba ko ànd ak moom jub ilaa siraatin jëme ko ci yoon wa nga xam ne mustaqiman mu ngi ne coow jëm si ci man moo tax nag bu leen yaakaar ne foofu laa yem moom ñu ne waa tey naawu jox naa ko fi dunya ci àddina bi xasanatan yiw wu ne gàññ yiw weesuwul nga jur yonent yi bañ tuddee la abul anbiya yi ñëpp ci yonent yëpp moo leen jur rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi laaxirati xasanatan wa qina adaba naar yàlla firi ko foofu waa tey naa jox naa ko fi dunya ci àddina bii li ngeen di xëccoo xasanatan yiw bem ne gàññ wa innahu lii mbir tey mbir li wér te wóor mooy fil aaxirati ëllëg ci àllaaxira lu mu ci teg la mina saalixiina danaa ko boole ca ña gën a yiw maam Ibrahima am sens wa innahu fil aaxirati la mina saalixiin mu door a joxe ñu yonent bi summa awxaynaa ilayka xoolal fa la dafa ne inna Ibrahima tudd turu maamam. waaye ormal yónnant bi bi mu yegsee ci moom lu tax waxul yaa muhammad wala yaa ahmad wala yaa hamid maahi mu ne summa awxaynaa mënoon na wax summa awxaynaa ila muhammadin wala ila ahmad wala ila hamid waxu ci benn ndax ormal yónnant bi xam ne yónnant bi fu mu toll bëtam a ngi ne dàkk ci yàlla moo tax yàlla ne summa topp awxaynaa waxyunaa ilayka ci yow mii sallallahu alayhi wa sallam yow mii di ma xool yow yonent bi waxyunaa jëmee ci yow an lii mbir tey mbir li wér te wóor mooy tabi toppal millate ibrahima xoola ormal kii tudd maamu lu taxawul millate jaddika yàlla ku ormaalul yonent bi dem safara ndax yàlla mi ko bind gën ko daf ko ormaal fokk ñu ormaal yonent bi faal ah, kañ faal faal te ngéej lay jóge moo tax ma profitoo ci ngeen may ma képp koo xam ne da jóge fu sori boo yëgee ne mu ngi guddi rek yeeweekul parce que fii am na heure yoo xam ne boo yeeweekuwul doo am oto ñi nga xam ne it dañ dëkk fu sori bu ñuy yeweeku nañ seet ñi nga xam ne mën nañ leen yërëm wàccewaale leen ci yoon bi ñu yërëm leen yóbbaale leen waaye ku fi nar a toog ba yenn heure yi parce que boo ko defee danga may sonal te sécurité amul sécurité nag moom mu ngi ci loxol yàlla waaye bàyyi sa xel sa bopp ci la bokk kon ku toog ba gis ne mu ngi bëgg a guddi rawati nag jigéen ñi rek dawal yeewee waaw wàññiwul dara waaw summa awaxay naa topp awaxyu naa ilayka jëme ci yow sallallahu alayhi wasallam an lii mbir tey mbir mooy li wér te wóor mooy tabi na nga topp millata ibrahima sa yoonu maam ibrahima summa awaxay naa ilayka an ittabi millata ibrahima xaniifan nga ommatu na lu tax wa maa kaana minal mushrikiina mosta nekk ci yéefar yi mosuma bokkaale man yàlla innama ju'ila sabtu ala alladina ixtalafu fii wa inna rabbaka la yaxkumu baynahum yowma alqiyaamati fi ma kaanu fihi yaxtalifuun yàlla nee na ñi naan tiijaan murit xaadir laayaan ibaadu rahmaan falaax chia teel na man noonu laa ko firee innama juila sabtu allazina ixtalafu fii teel na wa inna rabbaka la yaxkumu baynahum yowma alqiyaamati yàlla ne may àtte murit ak tiijaan ak xaadir ak laayeen doonte nag aaya ji la ko tax a jóg mooy yàlla ba mu teree napp samedi dafa noonu bu kenn napp samedi yowul yi ne yàlla samedi lër sonnoon di noppalu yowut moom ñoo gën a bon ci li yàlla bind waxuma ko nag yàllaa ko wax xam nga yàlla dafa ne xalaqa samaawaati wal arda fi fii sittati bi amri fa tabaaraka allahu ahsanul xaaliqiin bi yàlla bindee dimanche la tàmbali bind dimanche altine la bind asamaan ak suuf talaata àllarba mu bind ah astafurlah dimanche altine la bind asamaan talaata àllarba mu bind suuf alxames àjjuma mu bind li ci diggante bi yépp ak lim namm ba yowmal xiyaam taxaw ci alxames àjjuma la ko bind samdi summa stawa alal arsh mu jublu ci arasham pour bind ko waaye noppaluwul boobu arash amul nit ñi jànguñu dégguñu alquran su mastawa al arash yàlla du dem du koy toog ci arash ñu bare ñu ne mu dem ca gàngunaayam nga mel ni yàlla benn fauteuil la am ne ci daj yàlla ëpp na fauteuil lu tax mu wax ci xadiisul qudsi ne xajuma ci asamaan xajuma ci suuf waaye xaj naa ci xolu jaam bu ma gëm loolu la wax yonent bi summa stawa alal arsh dafa wax ne summa yejlisu alal arsh aljuluusu mooy toog summa stawa la wax lan mooy istawa alal arshi stawa wax na ko ci beneen xadis ci beneen aaya alal arshi stawa summa topp stawa mu yemoo bind mu yemoo bind summa stawa mu yemoo bind alal arshi ca arash waaye mu fa pour toog fa yowul yi nag ne dafa sonnoon di noppalu <laughs> moo tax sa bés boobu mu ne bu ci kenn napp bi yàlla teree napp samedi parce que boobu dafa bëggoon rek géej gi féex du fii dañ koy def day am moment boo xam ne ñu ne bu kenn napp pour feexal géej gi géej jën yi mën a kii loolu rek yàlla daf leen bëggoon dimbale rek ne leen bu kenn napp samedi ndax jën yi mën a produire yàlla dafa yàgg bëgg nit yàgg a nit wala man nag salowa bu ñu bëggaan lekk rek asamaan mburoog yàppay ñëw ci jamono yenn ci yàlla Moussa yàlla tere leen napp ne leen bu leen napp samedi ndax géej gi mën a am tuuti jën bu dimanche ngeen mën a napp am tuuti ñu ne yàlla ci la noppalu woon moo tax mu sànc ko léegi nag duñ napp samedi xam nga ban politique lañ doon def bu samedi dañuy dem baara baare géej gi baare jën yi samp ay fiil bàyyi ko fa bu dimanche ñu ñëw jukki ko yàlla ne mook nappayam di waxuma leen loolu yàlla ne leen moom nappa yem ma loolu ngeen bàyyi gii gi laa wax innama moo tax yàlla wax ko nag ci alquran waaw summa awxaynaa ilayka an ittabi millata ibrahima xanifan wa ma kaana min almushrikin innama jucila sabtu jucila mooy napp ala allazina ixtalafu fiihi ña ca wutee woon ñii ne waaw ñii ne déet yàlla na bu mu la bu la déranger innama jucila sabtu naka tiijaan ak murit ak xaadir ak laayee nag ibaadu rahmaan ak falaax bu leen fi nekk di xuloo yàlla ne teel na inna rabbaka naka sa borom la yaxkumu dana àtte baynahum seen diggante yowmal xiyaamati bés pénc fii maa ca la nga xam ne kaanoo nekkoon nañ ko fii ci àddina yaxtalifuuna di ci wute lim ca tegalay woon noonu la baaxe mu ne yow yonent bi yow mi féetee ci ka kaw jullit ñi santuma la xeex ak xuloo uddoo wooteel rek ila sabili rabbika jëm ci sa yoonu borom waaye bil xikmati ci sagesse bu ko def ci xuloo bu ko def ci xeex bu ko def ci piccaxoo bu ko def ci noonoo bil xikmati ci sagesse ci dal ci tey ci yar wal mawizati ak waaraate xasanati bu rafet xasanatin bu rafet waaraate bu rafet bul fi ne di waaraate waaraate woo xam ne day choqué nit ñi wal mawizati xasana wa jaadilhum daañu daggesanteeg yow ci xuloo na waaye yow booy daggesanteeg ñoom wa jaadilhum nanga nga daggesanteeg ñoom bi lëtii ca na xam ne bi lëtii ca la xam ne hiya moom daggesante woowu ahsan moo gën a rafet ahsan la indi dara féetewu ko ko bu noonu xasanun rek am bu ko féetee ko waaye ahsan la wax mooy mention très bien wajaadilhum na nga daggasanteeg ñoom bu boobaa bi ca la nga xam ne ahsan moo gën a rafet lu tax wajaadilhum bi lati hiya ahsan lu ci topp inna rabbaka naka sa borom lii mbir tey mbir li wér te wóor mooy rabbaka sa borom huwa moom aalamu moo xam bi man ca ka nga xam ne dal la réer na an sabilihi walis yoonam moo xam murit baa ngi tege ci yoon xamoo ko yàllaa xam ndax am na wala amul tiijaan bi tege ci yoon yàllaa ko xam xamoo bi tege ci yoon yàllaa ko xam ko laayeen bi tege ci yoon yàllaa ko xam xamoo ko falax bi tege ci yoon yàllaa ko xam xamoo ko kon yàlla ne bu leen fi ne di soow ci yooyu wa aalamu bi man dalla an sabilihi waaye wa moom aalamu moo xam bil muhtadina ci ki jub tiijaan bi jub yàllaa xam murit bi jub yàllaa xam jullit bi jub yàllaa xam xaadir bi jub yàllaa xam laayeen bi jub yàllaa xam ibaadu bi jub yàllaa xam falaax bi jub yàllaa xam chia bi jub yàllaa xam yàlla ne bàyyi leen ak man ma àtte yéen dañ leen di àtte waru leen a àtte ku ñuy àtte doo àtte kuy jooy du noppiloo kuy jooy <laughs> nañ waxante dëgg kuy jooy du noppiloo kuy jooy day jéema a noppi moom ba noppi doo seet ku muy noppil huwa aalamu bil muhtadin yàlla ne maa xam ñu jub te saa sa fañ la tooñee aaqibu na ngeen fayu bi ci misli kem maa la nga xam ne aqabtum lañ leen tooñee shérif sa nàngamtaanu maam Sidi Kunta sa nàngamtaanu maam yem ca naaru moo tax ma ne naaru gànnaar rekk mën a fayu boo ko dee naari gànnaar yaa xesew yaa salte yaa forox caaya mu ne la ak yow ñun ñëpp xam nañ ko ñun ñëpp dañ naan tooñ naaru gànnaar yi dëgg la wala dëgg ñi ciy mag laa wax fekkee woon naaru gànnaar yi ay yow naaru gànnaar sa caaya dafa forox yaa tilim yaa salte yaa nangam booy nopp mu ne la ak yow xam nga ak yow moom dépassé wu la ko wax la la delloo mais wolof rek nga naan ko sa nangam taanu maam rek mu tàmbalee ci sa yaay sa baay sa bàjjen sa nijaay sa tonton sa maam sa maam mataar yàlla ne bu ko def loolu la yàlla di tere yàlla ne bu ko def wa fàttalikul bu baax in jamono boo xamee ne li mbir te mbir mooy li wér te wër mooy aqabatum suñu leen tooñee fa ca saasa fañ leen tooñee aqibu na ngeen fayu bi ci misli kem mm-hmm. maa la nga xam ne mm-hmm. aqabatum lañ leen tooñee waaye yàlla ne gënaluma de wala in sabartum géñ naa ne bu ngeen bu ngeen muñee daf ko laa mu xasam la wala wa ca dëgg-dëgg lay firi in wa fii fàttalekul de in ca dëgg dëgg dëgg sabartum bu ngeen muñee fa muñ googu ngeen muñ xayrul moo gën fuuf li saabiriina ci aji muñ ji xayrun li saabiri man yàlla te xam ne yaa ngi may tooñ guddeeg bëccëg ma di la baal wasbir muñal liñ la def yëpp mu ne muñal wasbir muñal li may defa ko ëpp te maa ngi ne pat te mën a fayu fayuwuma wasbir muñal waaye nag wamaa sabru ko déet wa ma wamaa sabru ko déet sa muñ gi wamaa déet sabru ko sa muñ googu la ngay muñ hmm. bu mu nekk illaa billaahi lu dul ngir sama jëmm ji man yàlla bul muñ ngir sëriñ bi bul muñ ngir ndey wala bàyyi wala kenn yàlla ne woomaa déet sabru ko sa muñ boobu ngay muñ illaa billaahi lu dut muy sama jëmm ji man yàlla wama sabruka illa billah mu ne soo defee li ma la wax muñ ngir sama jëmm ji ba noppi nag wala tahzan alayhim bul jàqati seen sa diggante digganteeg ñoom ndax pexe yi ñu la pot de banaan yi ñu lay sànnil pour nga glissé yàlla ne muñ nga te maa la ko san bul tiitati kenn nag mu ne pot de yi maa koy teggi tegal la ko fële gannaaw li ma la def sant nga ko fuñ la gasal rek maa lay teggil pot de banane buñ la sànnil ci euh, tali bi pour nga glisser ma teggi ko ndax maa lay protéger bu booba protection moo tax mu ne wa ma sabruka illa billah wala tahzan alayhim kon bu leen bul jàqati ndax ñoom mm-hmm. wala takun bul nekk mukk fii dayqin di am tiitu xol ak xatuk xol mm-hmm. mimma yamkuruna ci pexe yi ñu lay fexeel ndax dana sotti wala du sotti yàlla ne dara du ci sotti ndax maa koy échegal wala takun fii day dayqin mimma yamkurun ñu ne ko lu tax mu ne inna allah naka buur yàlla mm-hmm. ma alladina mu ngi ànd ak ñi nga xam ne taxaw ñoo ko ragal te yow ci nga bokk walladina ak ña nga xam ne muhsinuna ñi ngay rafetal te ci nga bokk ba jéggale yaa jégale baax na de baax na de waaye xàttit xàttit mayewut dara li Serigne Cheikh doon wax rek tey nga xam ne maa la gën di mbaam mu yàlla soxla wuli mbaam ay nit la soxla tey nga xam ne maa la gën di xaj mu ne yàlla soxla wuli xaj ay nit la soxla da ko naan tey nga xam ne maa la gën a yiw waaye du lu ñuy wax lu ñuy jëf la da koy jëfee ba ne ay la yéwén nag taalibe Cheikh mii naa ko ba ndax li ma koy def yëpp xooloo ko bu mujjee rek sa xarit lay doon idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun xamim waaye kenn mënu ko am nag wa maa yulaqaha illa alladina sabaru ñëwul sabru bi ñëwaat wa maa yulaqaha illa zu xazin azim boo muñee bokk ci borom cër yi boo muñee bokk ci borom cër yi xazin azim mooy ñi yor caabi dogal ñi yàlla jox caabi dogal boo tax nga ne sëñ nga dégg ñu naan sëñ Fallou Mbàkke mu ne mu am mu am bu ne du am du am dëggal ndax yàllaa ko jox caabi ja du yàlla nag waaye yàllaa ko fal faale ko fallu yàllaa ko fal faale ko kum naqari nga dee sëñ Fallou Mbàkke yàllaa ko fal faale ko muy fale jëlal ma ko bu baax a baax a baax sëñ Fallou mbakke yàllaa ko fal ko muy fale ku fàllu faale nga falu ku fal ku fàllu faalewul nga folleeku ci nitu yàlla yu ponkal yi la bokkoon sañ Sàllu Mbàkke loolu yàllaa koy jox ay nitam zu hazin azim ulul azmi min ar-rusuli lu lu leen ko may ñoom rek du ñu ay yonent mais ñooy borom caabi ya ñoo dogu dogu gu kenn doguwut yàlla jël lépp teg ci seen loxo taxul ñu nekk yàlla ana yonent yi dem nañ bu yàgg yàlla des fi jëf jëfinu yàlla taxul nga doon yàlla waaye yow yàlla dana lekk ceeb yàlla dina naan ataaya waaw ku ngeen gis mu lekk ceeb na xam ne du yàlla waaye yàlla mën naa may nitam buy lekk ceeb di naan ataaya da nga xam ne bu jëfee ñu foog ni <laughs> jëfinu yàlla la ah waaw nit bu ragalee wa taqullah wa yuallimukumullah bu la yàlla ji jàngal fu muy jaan day ñëw toog di la jàngal fii naan la alif ba déedéet sa xol bi lay ubbi sol ci li ko neex ngay wax lu la neex te loo wax muy dëgg ah waaw wa taqullah wa yuallimukumullah yàlla ne ragal leen ma ma jàngal leen moom la ma Thierno Bachir dama bari wax xaaral ma ñëw jox ko micro bi moom la ma Thierno Bachir doon wax keroog. waaw Thierno Bachir moom la may wax keroog mu ne ma gis nga yàlla Chérif Ibrahima bi may wax loolu ci affaire sëñ Abdou bi mu ma réeralee noonu dama réer xaw ma kër gi mu ne ma gis nga yàlla fi muy waxee ak jaamam xeet yi muy waxee ak jaamam dafa bari min waxyin min waraa waraa i xijaabin yooyu yëpp alxuraan na ko tudd wax minal wax waxyu moom amatul ab yonent rek la yàlla di waxyu ku ne yonent nga nag dangaa juum ma nag damay sant yàlla billaahi wal kitaabi bëggumay di wax yi waaye dama koy sant bu seetaani Chérif Dabakh TV mu dugg ci biir dama jógee euh, altine Belgique di dem Paris TGV bi ma jël dama ne cëpp rek wàcc di génn ci porte bi pour jël taxi sécurité bi ñu yor sécurité bi kenn waaxu ak armam yëpp jubali si ma baal ma shérif ne ma jàpp loxo xam naa bëggul ñu gis ko njool la nag moo sut Mansour Guèye mii te ëpp ko ne ma le wallaahi moo la sut ëpp la te dina ma dégg mu ngi tudd Omar Omar Diallo la tudd ne ma man Omar Diallo lii de muur la du muuraake mu ne ma taalibe maam borom Touba dina ko seetaan Omar Diallo mu ngi liggéeyee ci gare du nord bu France falaa ko fekk mun na yu ma jàpp ne ma yow bër bu set yow lay seetaan ci Chérif Dabakh TV mu ne ma taalibe maam borom Touba la waaye bu ma la seetaanul rek Serigne Cheikh lay seetaan bàyyi lam doon liggéey génn arrêtel ma taxi ne borom taxi bi wàcceel vitre bi mu wàccee ko mu ne ko lui là c'est mon marabout il faut faire très attention sur lui ok mu ne ko way waa waxul ak man lañ yegg waxul ak man dañ yegg waa ji euh, kañ la àllarba may wëññeekuwaat fekkaat ko mu monte balaa may jël sama TGV dem na jëndal ma café butéelu ndox ak euh, xaw ma ku ko xam ne dama bëgg gerte gerte yooyu ñuy def ci jaxase koo amande ak yu kenn xamul moom la indi ne ma diira une heure de temps bi nga mos ci balaa ngay te wallaay fi mu ko indee la baaxee ndax boobu ndékkiwu ma añu ma ma dugg di ko kojomte ba bi may yegg tuuti ci des ma jox ko doomu Pape bi ma kura ne ko mos ci taalibe bi maam borom Touba ma ko jëndal waaw ah, kooku lu ma ko jox ba mu defal ma loolu te duma sëriñam kon Omar Sow maa ngi koy sant di ko gërëm Omar Diallo taalibe maam borom Touba la mu ngay liggéeyee gare di noor Paris ci sécurité bi fa la bokk ma duggaat ci biir train bi bi may wàcc ci gaar bi am keneen ku ñëw nuyu ma ne maa nga dëkk ba booru naayoobe mu ne ma billaahi wal kitaab yi li nga ma dimbalee ci Mahmoud Khalilil Xosari yal na la ko yàlla fay daal dina yàlla sama loxo rek teg ma ñëwaat ba ci gaar bi toog di xaar pour naan kafe di dugg ci couloir bi pour dugg ci restaurant bi am keneen ku ma nuyu ne ma i kii du Chérif Ibrahima ma ne ko ankañ ah, mu ne ma man la Badou Abdoulaye laa tudd Diop maa ngi la xamee woon ci kër sëñ Xumma 89 dal di composé woo Cheikh Tidiane Xumma doomu sëñ Xumma ci kanamam ne ko tey li ma yàlla defal Chérif a ngi nii am ma paas la ko waaw lii maa ko defal sama bopp ñu dugg ci restaurant ba lu ne jënd na ko. ah waaw kañ Ablaye Diop la tudd ñu koy wax Badou waaw te ñii ñëpp duma ci sëriñu kenn ay taalibe maam borom Touba man daanaka fi mu ne murid yéem a gën a bëgg ci tiijaan yi